Youssou Ndour à Bruxelles Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet Youssou Ndour au Palais du. xam nga ku ñu seeti Hadjibou Soumaré nee nañu tey journaux yëpp yoo ko bind Hadjibou Soumaré candidat am yëngal na pale ba candidature am na palais ba nag nekkoon na fi premier ministre bu Ablaye Wade léegi na dafa ñëw pour nekk candidat ci élection yi waa Kees la Kees nag seen candidat yi ñu ngi bëgg a bëri ah Idrissa Seck Thierno Alassane Hadjibou Soumaré am na tamit beneen procureur magistrat bu bàyyoon am na keneen ku ci bokkaat muy cinq ñu xooli ndax Thiès ñoom dañu bëgg a jël Sénégal war a Agibou Soumaré moo bëgg teg tànk Sénégal Agibou Soumaré ñu seeti ko jërëjëf Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tuur ak sa sant dama ne nekkoon naa fi premier ministre ci jamonoy Ablaye Wade léegi nag sama xel dafa delluwaat dellu sama réew jël réew mi teg ko sama loxo ndaxte ndaxte bi ma nekkee premier ministre xam naa li Sénégal capable ak li Sénégal man te yaakaar naa ne xam-xam bi ma am war naa ko mën a jox doomu aadama yi nekk Sénégal pour ñu mën a suqali suñu réew. bi ma wane bi ma wanee ginnaaw réew mi ci cadre liggéey boo xam ne ci Union africaine la xam naa koom-koomu Sénégal lan moo ko mën a suqali ndax ci koom-koom laa doon liggéey. kuy man kuy xaar ci man xaste doo ko gis kuy man kuy xaar ci man waale doo ko gis kuy xaar ci man ay xarabante doo ko gis ndax man doxuma ci loolu ci limay may dox mooy li nga xam ne mooy senegal nga xam ne dafa sëgg ma bëgg ko sigil pour Sénégal mën a jëm kanam sama première priorité mooy fexe ba delluwaat àq ak yelleefu doomu aadama yi sénégalais bu nekk kam sa droit bi nga xam ne moom nga war a am te loolu mooy yomb ñaareel bi ñaareel bi mooy mburu bi nga xam ne moom la ñuy ndekkee waaw mais dëkk boo xam ne bu ñu yeewoo ñun ñëpp dañuy jubale ci mburu yi ñun ñëpp suñu xel day nekk ci mburu koo yeewu ne ko ndax ndekki nga mun a déedéet mer na waaw boo bëggee jàppale Sénégalais yi da ngay njëkk wàññi li nga xam ne bu ñu yeewoo loolu ñuy njëkk xalaat mooy ndekki danaa wàññi ndekki bu ma wàññee ndekki boo yeewoo li nga xam ne mooy sa premier problème mooy ndekki waa ku wàññi ndekki kay su ne la dinaa la may añ kay gëm ko soo wàññee ndekki bi ci loo mburu bi bu ñu jël farine bi rek favoriser ko dugub bi ñuy bay ak li nga xam ne mooy mburu gerte mun naa nekk mburu mboq mun naa nekk mburu mboq ak gerte ak mburu sànqal su ko defee ku nekk yaay xoom mburu bi la tàmm ak bi nga tàmm nga lekk njëgu mburu bi mun naa ko yóbbu ba ci trente cinq francs la kilo waaw léegi bu ñu fexee ba li nga xam ne moom mooy sexew kinkiliba bi nga xam ne ñun ñoo ko moom te buñ ko jëfandikoo ñun sénégalais yi fexe nag ñi nga xam ne ñooy defar ay kafe ñu waxtaan ak ñoom ne nañ ñu wàcce njëj gi ñu wàcce impôt yi sénégalais bu yeewuti suba teel kenn ku nekk di nga ndékki ba géex deuxièmement su ma reglee ndékki ba pare danaa regle li nga xam ne mooy añ ndax ceebu waalo ceebu Casamance ceebu Fuuta ceebu Thiès ceebu yëpp mun nañ ko jël di ko bay suñu réew te buñ ko bayee suñu réew ñu fexe ba ñi nga xam ne ñoo doon jënd ceeb bitim réew ñu daal leen jàppale ñu bàyyi loolu di jënd ceebu réew mi di ko consommer euh, dama ne bu ñu seetiti lu ñu feesal suñu biir nañu seetal li ñuy jox wér gu yaram gis nga ñun ay saraxule man saraxule laa sumaare laa sant waaye kenn gënu maa gën a doon kajoor kajoor ndax sant dëkkul fenn boo xoolee samay maam ay saraxule nañu waaye gis nga ceeb bi ñuy bay ci dëkk bi boo amee géej bu ñaan géej yu yees ne ko ci tëmb sànni géej yees boo ko ne tëmb sànni ut sa ñam bi bi nga xam ne yaa ngi koy am diggante piir ak fi nga xam ne mooy mexe boo ci amee ñaari carotte ak nawe kenn du la dàq ceeb te loolu yomb na bu ñu tàmmal suñu bopp ay ceeb yoo xam ne dafay niin bat du ñu am wér yaram bëgg feesal suñu biir nañu fexe di lekk loo xam ne mooy njëg lu yomb mu ànd ak santé ngëw nga xam ne dangay ngay la le problème alimentaire problème mu santé ak problème longue vie sénégalais yi te bés bu ma nekkee président kaso yi nga xam ne ñoom la ñu tëjoon ñi nga xam ne seen yelleef dañ ko tëj danaa bàyyi tous les prisonniers politiques ñu laa dee génn te kaso yi nañ ko changé kaso yi nañ ko changé parce que kaso yi dafa war a nekk li nga xam ne moom moo dëppoog suñu aada ak suñu cosaan gisal jigéen boo xam ne dañ ko jàpp kaso tëj ko te mu doon sëy def erreur ñu tëj ko gisatul borom këram nekk ci kaso bi ñetti at te jigéen boo xam ne xas nga ba sey nekk ci kaso bi ñetti at gisoo sa borom kër man bu ma nekkee président dinaa fexe ba muy am rencontre conjugale maanaam bu fekkee ne dañ laa tëj ñaari at bu dee jigéen la sa jëkkër dina la seet si weekend bi ngeen nekk fa bu dee góor la sa jabar dina la seet si weekend ba ngeen nekk fa ndax loolu dina tax nit ki xelam dellu si mu xam ne ne wax dëgg yàlla mu ngi dund waaye boo ko xañeew warefam ak li nga xam ne mooy àqam bëgg koo xañ bëgg-bëggam ak bànneexam ah non non non non c'est pas la démocratie yaakaar naa ne lii may wax nii am na ñu mu neex parce que boo xoolee ci mandat bii nga xam ne deux président Macky Sall mu koy def genn wàllu sénégalais yëpp ñu ngi ci kaso bi te kaso neexul te sëy dafa neex am sa jabar am sa jëkkër ñu la ràpp ci kaso bi jabar gisul jëkkër jëkkër gisul jabar nga tëj ay wellefam ak ak ak xam tëj bànneexam xam ah, bu génnee normal munu nekk tey loolu laa leen tey ci maanaam fexe ba ibbi bànneex yi libéré bànneex yi delloo leen seen àq ak yelleef ndax nit bu fekkee ne bu bëggee ànd ak sagom il faut nga bàyyi koog bànneexam te bànneexu doomu aadama ku ko xañ doomu aadama yaa ngi tooñ suñu borom ndax xel bu sell mooy jàkkaarloog suñu borom munoo nekk di julli sa xel di nekk si sa soxna munoo nekk di julli sa xel di nekk si sa jëkkër kon nañu libéré prison yi libéré prisonnier politique yi xam nga ne tey am na ñuy tëj ci kaso bi ñaari at ñetti at seeni ay soxla ñu ngi seen kër gis gisuñu leen dégguñu leen te yow am na loo xam ne sa digganteeg sa soxna la àq la ak yelleef kon nañu ko seetaan loolu laa bëgg combattre pour ñu dindi problème yooyu régler problème mu ndekki régler problème mu añ problème mu reer ak problème mu fanaan problème mu ndekki problème mu añ problème mu reer problème mu ndekki problème mu añ problème mu reer